li ñu doon wax nañu delloo yàlla li mu moom fii lu fi dalwaay yàlla la neex léelée sax dem na ba ci di nga sëy nekk ci kër gi nekk ak sa wujj pour yow yaa ngi seetlu ni moom pour yow lenn rek nga gis mooy moom nu mu la fi jëlee la bëgg loolu nga def sa xel loolu nga def say bët loolu ngay seetlu te loolu nga seetlu it loolu ngay gis ndax nit moo mel noonu jàppal ni yàllaa leen boole ngeen war a jaamu yàlla gis nga fi mu toll nii yàlla maandu na maandu goo xam ni nit mën mënta def lu bon am lu baax munul ne nit mënta def lu baax am lu bon munul ne kon boobaa yàlla bu boobaa day weddi boppam te yàlla dafa sérieux loo ko jox la lay delloo yàlla loo ko jox la lay delloo soo indee lu bon mun la man awma lu bon teg ko fii boo ñëwee jël boo indee lu baax mu téye la ko boo ñëwee mu ful ko dooleel la man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha wa man jaa siia fala yujza ila misla wa hum wa la yuzlamun alquran a ko wa kon doomu aadama bi li war ci moom mooy na delloo yàlla li mu moom di yàllaa ñu sàkk mbokk yi ku fi joge na nga xam ni yàlla mi la sàkk bëtam mi ngi ci yow nga wéet ak nga wéetaliku beneen bi nag mu ni araftumullah falam tuaddu xaqahu xaratumul quraana boobu ñun ñii ñoo ko moom masaw ñun ñi ñii xaratumul quraana waram amalo bi gars yi dañuy jàngaal xuraan bu màggal jotee ñu jàng bu gàmmu bu ñeseen bu laayeen jàng te ñi la dàq jàng alxuraan ñoo gën a saay-saay walam taam alxuraan ay wax man waxuma de xaratumul quraana waram taamalo bi moo tax léegi ma ne la ci biir xam-xam jotewul daraak jikko d'accord naa ne xam-xam dana yóbbu ci ji nit moom jikko ju baax mais day fekk mu nekk xam-xam bu ñu jëfe sellal jëfin wa kon gaañee daq jàng alxuraan mais alxuraan moo tax man toujours damay wax ni man wax naa leen ko du ma jug ci leen ko wax bis bu ma dee bu ma kenn jàngal alxuraan bu ma kenn wàccal kaamil taggal leen ma yonent bi xam nga lu tax ah. alxuraan wóorul alxuraan xoola ñaari wax yi rek defal bàyyi léegi yow boo jàngal alxuraan ka nga koy jàngal daa daawul def da daan bàyyi yàlla ne la i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasul def leen maa ngi jàkkaarloog yéen di leen xool léegi yow nga jàngal alxuraan koo xam ni koo xam ni moom yàlla dafa waxoon ni bu kenn fen moom fen lay dëkkee ba moom jëw la doon def ba faatu moom da doon da doon da doon da doon da te kat alxuraan a ngi maanu maanu goo xam ne ma saw saa yoo ko jàngee mu duma la yow mi koy jàng yow yow yow avant muy wax ak nit ñi yow saa yoo xëy jàng alxuraan di nga gis aaya buy wax ci wàllu jëw ba matul jëw nga léegi wala muy wax ci njortu ñaaw am nga njortu ñaaw ci léegi nekk ci nit wala muy wax ci lu wóorul wala ci njaaloo walla ci lekk lu lewul def nga ko parce que nit moo mel noonu nit a bu tax ala kulli xaalin alquran buñ koy jàng dañ koy jàng ngir jëfee ko huwa al miizaanu taarifu minhu ma xawayta min al ashwaaqi wassadami هو الميزان تعرف من أما أويت من الأسود أقصام إن القرآن هو الميزان تعرف من أما إن القرآن هو الميزان تعرفه من ما عويت من الأسواق نانا إن القرآن نك القرآن هو الميزان القرآن inna waral qur'ana bis bu ne ma wax la ko inna xarfu tawkidin wa nasabin yéen ñi jàng grammaire inna anna layta lakinna laal ka anna ak simaal kaana min amal inna lu mu wax du dañ inna alqur'ana inna moo waral alqur'ana kenn du wax inna ba pare maas ci suuf xanaa mu nekk mala yam sarif mu ni Sëriñ Tuubaa nee na yaa kitaaban karimi yow borom yow téere bu tedd bi moom moom da daan defar lalam ba mu baax moom borom Touba suy ci parfum oud wala parfum bu neex bu pare lal ci darab bu baax ba pare jël alxuraan bi teg ko jàkkaarloo alxuraan naan ko yaa kitaaban yow terbi sopp góor gi demoon nga koo yombe góor gi tawloo Serigne Moustapha góor gi jaatloo Serigne Mourtada Mbacké góor gi sëñ ci Mbacké sant Mbacké na ni nii doon jaaru sëneena yaa kitaaban karimi nee yow mi nga xam ni yow yaa kitaaban karimi yow teew téere bi nga xam ni yow yaay bu téere bu tedd bi sëñ Bamba jox na la yàlla yow téere bi yàlla teral te nga am teraanga yow mi nga xam ni yaay téere bi nga xam ni ko attewoo ci yaw bu dajeeg yàlla mu teral ko yaay téere bi nga xam ni ku la fi bàyyee attewoowul ci yow bu ñëwee ma ko anta habibi dëggal sëñ Tuubaa nee na anta yow alquran habibi billahi maa la sopp wa xalili yemuloo ci yaay sama xarit ndax ñaar layu bokkul soppe ak xarit du benn du benn fi mu toll nii yow xaritu mosow nga Aïcha lanam la <laughs> ne la yow yow mii di sama soppe yow ma bëgg la yow alxuraan wax xaliil yaay sama xarit xam nga xabib ak xalil laa lay firil xoola xabib mooy rasulullahi xalil mooy ibrahima ibrahima xalilullahi muhammadun habibullah bi xam nga mooy lan kii moom moo bëgg yàlla kee yàllaa ko bëgg ma ne masaw ñaar benn jigéen a fi ne bu tudd wala Umu Kalsum wala Faatu yow nga nopp ko moom mu nopp mbay loolu mooy xabib ak xalil kunta doon nga lu te lu tee yow yow alquran kon kon alquran qara'tumul qur'ana walam taamalu bi ñetteel bi nag moom lay laay ley affaire bi jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf ñetteel bi xam nga boo demee ci mu xaddimatul am ndax sëñ dafa wax lu gën a garaaw loolu sëñ Tuubaa dafa ni ayaa xaadimal moxtaar yi laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun mu xattao sëñ Tuubaa nee na dafa def jëmmam ñaari jëmm ñaari jëmm di wax ak boppam moom mooy wax de mu ni sëñ tubaa moom sëñ tubaa mu sëñ tubaa ayaa xaadimal muxtaar yi e eh, yow sëñ tubaa yow mi nga xam ni yow yaa ni yow yaay ki liggéeyal yonent yàlla muhammad mi ñu tànn e laa tan sa saxabahoo bul fàtte gaa yi ci ginnaawam nag kan Babacar Omar Ousmane Ali ak ñu mel ni ñoom ñu ni ko waaw lu tax nga indi loolu mu ni fa man yan sahum ku fàtte ñooñee fan matxu taggam matxun tagg la woo xam ni mu xattaaw dafa cëkk gis nga yëreel da nga bëgg ñu gàmm man gàmmu ma sax xam nga yére lu mu rafet rafet kii li mu sol nii li mu rafet rafet rafet rafet bu cëkkoon léegi ngeen wokkante ko cëkk sëñ Tuubaa nee na booy tagg yonent bi bàyyi def nga salatu ala nabi bu cëkk yonent bi moo waxoon fala tusallu alayya salatan batra yonent bi wax ah, bu leen julli ci man julli bu cëkk ñu ne ko ban la mu ne mooy julli bu yem ci man rek boobu baaxul sëñ Tuubaa jël ko way ko xadis la arab bu nekk nag way arab ko arab wallahi alazim wallahi alazim wallahi alazim arab bu ne da ko way dem na ba même ci biir ci biir boobu mu xadimatoo am daax mu ne aboubacarin siddiq du sidqi wal wafa omar ibnul xataabin faaruqin ali ibn abi talibin ousmane ibn ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dafa waay yaa waay non kenn mënu wax lépp innal kawaakiba sëñ tubaa nee na fala taxis bul méngale ibnu abdullahi doomu abdullahi bil fudala ngay lim borom ngëneel yi ñëw yonent bi dugal ko ci gaañe nii moom ñii ñooy yem sëñ tubaa nee na boo ko defee xam nga loo def nee na xoola xas nga gaaña saaga nga leen ña nga ko booleel xam nga lu tax koo ci ñoom ñépp koo ci xool dina la wax ni ci ruq gis naa jikko bu ne ci yonent bi bu ma bëggoon a am ndax moom du ñoom ñoom duñu moom ndax moom pee la ñoom jëluñu deuxième sax di ngeen ko wax mu noppi ndax ma mu ne fala taxit ibn abdullahi buli fudala inal kawakiba sëñ tubaa nee na ku dem ca làmb fekk ñu naan diway roi des arènes damay bañ a tudd nga bàyyi ko fa di tudd ku gën a tuuti. waaye man de bàyyi Bombardier ko di tudd yaa nee na nga ñëw fekk Bombardier mooy roi des arènes nga ñëw naan roi waaw yaa jaar roi des arènes sëñ Tuubaa nee na xas nga sa bopp xas nga ka ngay waxal ndax moom xam na ne moom du roi des arènes nee na roi des arènes mooy Rasulullah نيل فضل مسيئين له واخلي والفضل لرسول الله yéen Moussa yow yow waaye yow tamit nag yow waaye. déedéet yéen ñaare zalika min mishkatul wahid yéen a bokk ma. dëgg la <laughs> day fay wax si minan min baaxil xarit bu sëñ Basiru Mbàkke bind. waaw. de wax ni. Cheikh Ayba lu mu ñu defal nii doy na sant yàlla lu ko waral nee na noonu muy tagge yonent bi sallallahu alayhi yooyu nga xam ne benn bu nekk da ko jël xaaju si ba mu jeex nee na fa nga koy taggee yow nee na yiw googu suñu borom mu ñaanoon borom bi mu jaar si yonent bi sallallahu alayhi mu taxawal ko na yiw googu yaa ngi koy am moo tax jox Cheikh Ayba muy wax léegi dafa wax ba génnee jamono yëpp cheikh bi yàlla na yàlla parce que lii mooy jàngin lii bokk na si li ñuy lii dindi dégradation de mœurs jàng mag ñëpp xam mag ñi mhm. ndax day dindi weccoo ak xuloo ak te cheikh ay bu wax na sànq lu am solo yàlla nit ñi dañ koo gëm wante wóoruwuñ ko Sénégal yëpp gëm nañ ko mais wóoruwuñ ko te loolu dafa garaaw te lii mu def nii ak lii mu génnee nii mhm. loolooy dindi lu bari parce que lu gën a garaaw mooy werante si ay nitu yàlla yi nga xam ne yàlla dana jox la nga wax dara xamuloo ko. Mhm. ku jàngul ba pare romb naan diw raw diw de war a lii muy jàngale nag loolu la si nit ñi war a jëlee ndaw yi. Mhm. loolu lañ ci war a gën a xëccuwaat a xam nga léegi nag kon nga dégg ni alxuraan boo koy jàng xam nga mokkal kaamil bi amul solo. déedéet gis nga saxaaba yi xam nga lu ñu reyoon saxaaba bu nekk aaya alxuraan la buy dox boo ne Omar ñu ni dëggu wa tawaasaw bil yàlla dafa ne waxante leen dëgg waxul nga ne fi di wax nit wax nga mer ko waxante bu ñu la ko waxee nangu ko waxante leen xaq yaa ngi dégg fa sidqu zinatul murid aadana allahu min al dëggu mooy taaru taalibe nit dafa war dëggu walaw kaana ala nafsika loolu yàlla wax yonent bi waxal dëgg donte boo ko waxee kaw la jëm wax ko Umar ibn al-Khattab dëgg alxaqu min rabbikum ko wax Umar da nga naan dëggu nga ne Ousmane al iman yonent bi nee na kersa amul gëmoo yàlla kersa jigéen dëgg dëgg dëgg day am kersa waaye jigéen joo xam ne danga nga naan sama ndoxu bët dafa jeex yow nga xam ni yow sa ndoxu bët yow warul feeñ sax bay jeex nga ni jeex na nga ni ba sa Saddiq ñu ne la hee ba gaa ñi wedde yonent bi moo njëkk gëm yamu ci de moo bëgg yonent bi bëgg goo xam ni jaral na ko moom Babacar Saddiq Makka ak Madina da ko dox gëléem la yor yonent bi yor gëléem yonent bi war ci gëléemam Babacar bàyyi gëléemam di dox mu téye ci nosu gëléem bi yonent bi di dox ngir bëgg yonent bi jaral ko mu sopp yonent bi ba muy roy yenent bi ni yonent bi soloo noonu lay solo ni yonent bi di waxee noonu lay waxe loola waral bu ñu dëgg Madina gaa yi am problème kan la ci ñoom ñaar kuy yonent bi kuy Babacar ndax Babacar dafa sopp yonent bi ba di ko roy nu muy soloo noonu lay solo waaye bu ñu duggee Madina Babacar moo wàcc daa day jël la ko mbaaraloon ni eh bis ni tey sang baa ngi nii gaa yi ni kon waajaa ngi kon Babacar moo njëkk dëggal yonent bi waaye mooy tab bi moom Babacar mooy tab bi wala walla wala zi jaa bi sidq wa saddaqa bihi ulaayka humul muttaqun ca suratu Zumar nga dem ci suratu Layl yàlla wax ni Babacar dafa jël alalam dépensé ko ci l'islam kon nga wax ali ñu ne la mooy xam-xam xam-xam utlubu ilmi walaw bi chiinin yent bay wax de dem leen wuti xam-xam donte Chine ngeen jëm boobu Chine dafa sori woon nag moo tax de boobu dafa sori woon te boo booba daan dem doo jël avion da nga daan jël ay gëléem ak ak ak ak kii euh, bateau kon xam-xam kon mokkal aaya alxuraan yëpp baax na waaye li gën mooy nga jël benn aaya def ko muy sa jikko jàngal yàlla nee na bu kenn fen bàyyil fen bàyyil fen bu kenn jëw bàyyil jëw bu kenn dog mbokk sang bi wax na ko léegi nee na yonent bi sallallahu nee na képp kuy dog mbokk ak ku dul teral gan bokkoo ci ñun kuy dog mbokk mbokk kenn du ko dog mbokk dañu koy jokk loxo mooy jokk mbokk jëlal sa alal nga mayee jëlal sa alal mayee mayal sa mbokk waaye am alal denc ko nan gaañi dañoo tardé nañu liggéey ji yàllaay mayee mayoo sa bopp bu ko neexoon mu jox ko gaañi bàyyi la séddoo kook ñoom jox leen te gis nga nit boo ko tanee dimbali woo ko mënatoo ko yilif nit boo ko ëppee doole duma ko mënatoo nekk kilifaam moo tax yéen ñi kilifa ngeen am problème bu rëy bëri na lu ñu leen di tooñ fii ci société bi walla ci école bi il faut ngeen muñ parce lu tax mooy yàllaa leen jox kilifteef yàlla mi leen ko xañ jox na leen ko rek yéen war na leen doy sëkk waaw kon sa dégg nga sallallahu alayhi wasallam daawul fayantoo lu ñaaw soo ko defee lu ñaaw day bàyyi ba mu paase mun la kaay mun la yow loolu du sa cër waroo ko def kon beneen li may wax moo di doomu aadama bi na fexe ba na jël benn aaya alxuraan def ko mu jikkoom jigéen nga jigéen bu ma san ñëw ci yonent bi sa alayhi wasallam ko jox ma lu ma wér ma naafila wala dama bëgg a def dama bëgg a def jihaad wala yonent bi ko am nga jëkkër mu ne ko waaw mu ne ko demal jihaad sa jëkkër demal naa fi sa jëkkër waaye am sa jëkkër ba ko fi di allah akbar di kàbbar boo paree yàlla duma la jël julli jox ko ñeneen waaw dégg ngeen parce tax jëkkër sëy dafa nekk farata jibril nee na ñaan naa yàlla lu yàgg ngir mu def ma nit ma bokk ci xeetu yonent bi ngir rekk li ñu leen yàlla may ñu nekk ñoo xam ni dañuy toog di déglu xam-xam nee na yiw woowu la ca ne ak di sëy sëy est-ce que xam nga ni masaw sëy moom rek moo am maqaama nga toog ay sa toog sa wet nga koy xool di bég billahi sharia mooy wax de nga xool ko kontaan ñu bindal la 70 tuyaaba à partir de 70 moom mu bég ñu bindal ko 70 xool laa wax kontaan boo ko xoolee ci keneen koo xam ni doganu looy kontaan noonu la bindee son bakkaar di 70 yaa ngi dégg yaa ngi dégg nga xool ko kontaan mu xool la kontaan ñu bindal ko 70 bindal la 70 jëkkër ak jabar te yàlla nee na wallahu yu daif li man insha bu ma neexee def ko miin xoola danga may fay ba pare <laughs> nee na bu la neexee xoola ba te loolu xool bi la waaye ma yow mi nga xam ne yow yaay kor Aïcha comme loolu nga bëgg moo wax loolu xool bi la waaye boo ko laalee mu kontaan nga teg ko loxo mu kontaan moom mu kontaan nga kontaan ñu bind la 70. oustaz bu bu bu bu branché soxnaam ñu branché ah. waaw waaw branché la. branché la waaw <laughs> yaa ngi dégg léegi nag léegi nag ngeen baal ma damay jàngale. damay jàngale rek léegi nag tey si tey ngeen jël sa jabar. ngeen baal ma nga fóon ko mu fóon la ñu bindal 70 bindal ko 70 ngeen sëy yéen ñaar ñu bindal ko 70 bindal la 70 nga pare sangu set déglul ngay sangu set guddoo bu dal ci suuf ñu bindal la 70 tuyaab moo tax sëy kenn da ko mën a kenn du ko fooyee yonent bi kenn da daawul fooyee sëy moo tax ku koy fooyee da ko xamul sëy sëy kenn du ko fooyee koo gis muy fooyee sëy xamul boppam sëy duñ ko fooyee bokk na ci li lay dimbali nag naa naafilaal ci sa borom kër jarul ne fi di jël kurus jaru ko jigéen day am temps wu borom këram temps temps jigéen ñi amatuñ benn temps ndax societé yeeg yow dekk ca ek nekkul ca société ba mbaa ca entreprise ba woote e yow defar nga biberon bi yow e yow defar nga njës gi bi yow e defar nga nangam boo moytu sax mu ko taajal ko taajal ko léegi nag moom ñaar bu ñu àndee di génn comme ni ñu koy waxee dañuy génn nga commencé kaas génn yow a lépp yow a am sa temps wu borom kër. na ma décoré. kon nga dégg ni alxuraan da jël benn aaya nga def ko muy sa jikko. jigéen nga buy sëy fexeel ba neel maam jaara busu radiallahu anha maam fawaad wele radiallahu anhum maam a kumandooy maam adama aysata maam asu janqa bu maam bayñas maam maam maam maam maam maam Seynabou Ndiaye maam Mariam ñun ñëpp nga ni damay jël kenn ak sa yaay mu ne damay sama yaay kii yaayam dafa yéeme lool jërëjëf mu toog de dul yaayam dafa nekkoon si gox boobu nangu woon ba nga xam ni dafa mel na ko moo doon jaamu gox ba moo tax lii i faut mu am. jërëjëf moo tax it bëggoon na tukki. ngir depuis dem ci tànk Seydina Mohamed. mais yaayam bi mu waree dog dafa ko fommandoo loolu mu fekkee ci kanam ba tey. ñoo àndoon. <laughs> ñoo àndoon baax ngeen am. dëgg la jërëjëf baax ngeen am. jërëjëf te sama bàmmee laa nekk ndax su ma fàtte woon tamit armé yaa ngi nii. dëgg la digganteeg laay wax. baax rek kii wóor la nag moom bu baax a baax. incha allah incha allah ndax lii muy def du dafa jóg rek def ko dogalu borom bi la subhaanahu wa taala. dëgg bu mu jóg papaam premier diamanteeru Sénégal yi si la bokk dafa weexoon tàll ak sa kaw yoroon teraangam jël ko dugal ko si diine moo tax il faut yàlla may ko ku mel nii yal yàlla fay la lii baax la rek dafa baax rek di ko wax waaw dafa baax rek yal yàlla fay ko waaye nag ñun lépp lu ñu mel ak lu ñu am ñoom seen maam la parce que suñu wayjur maa seen maam la daan àndal moom rek la gëmoon suñu ay wayjur sama maam bu góor sama maam rek la gëmoon nag ala lii lépp ñoom la rek kon ala kulli xaalin ñi ngi doon ñi ngi sant yàlla bu baax mais daal jigéen na góor góorlu ci wàllu sëyam su ko defee li ma doon wax mooy doomu aadama bi ku nekk jëlal benn aaya alxuraan nga def ko muy sa jikko yaa ngi dégg su ko defee dina la dimbali léegi nag mokkal téere bi yépp nga mokkal ko baax na mais yàlla li mu bëgg mooy ku jëf walla asri innal insana illa alladina amanu wa tawaasaw bil xaqi jëf la yàlla soxla jëf surtout bu sell la kon yàlla nañu yàlla jàppale beneen bi moo di fi ci soxna yi jaamu seen borom kër c'est important sëriñam barke mooy sëriñ xawat wele moo muñal maama Ousmane Ba Aliou Bara. jigéen bu baax na boobu. waaw sëriñ Ba Kébari. ah ma wàttale na ko mu ñor. na ni jigéen ju baax nangoo tu ñal sëriñam barke mooy ci ma faw di wele moomu ñal amu Ousmane ba am ah, jigéen ju baax nangoo mu ñal sëriñam barke mooy ci ma faw di wele moomu ñal rek mooy dara. li ma tudd Aïcha rek a tax. moo taxit moo taxit ma ne nag nga ñu yokk si tuuti rek. waaw ñu ñu déglu. waaw mu ne ñu yokk ci tuuti. Euh, pour soxna yi. pour soxna yi. am na couple ba nga xam ni. am na couple boo xam ni. ku ci yàlla nattu nga nekk ak moom. ku ci yàlla nattu nga nekk ak moom. na nga xam ni sant gu rëy la. na nga xam ni cant gu rëy la. maanaam ngay soxna su yàlla yanjal nga nekk soxna su macha allah ku yàlla def nga taaru lool jekk lool. sa jëkkër comme ni ñu koy waxee ñaaw na man. sa jëkkër macha allah ñaaw nii Masaw. nee na loolu ba ngeen fanaanoo yéen ñaar. nee na bu ngeen fanaanee yéen ñaar. boo ko xoolee xool ma ma ñaaw ni may nelawee. nee na nga xool Masaw ni muy nelawee. nga muñ loolu te yàlla rek tax. nga muñ loolu te yàlla tax. moom tamit bu la gisee ngay nelaw mu rafet lool. moom bu la gisee ngay nelaw nga taaru lool. muy sant yàlla ndax muy sant yàlla ngir taar gi nga am te ñu may yiw gu rëy la ci seen biir moo tax ku la ci yàlla jox rek téye ko mu ne li leen di wax nag léegi ñu jóge conférence dem nag di gaaral jëkkër. dem di gaaral jëkkër ji <laughs> bu leen jàngale ji. bu leen jàngale ji. <laughs> kii day nettali. kii day nettali. yab na leen. yab na leen dem leen jëfe ji. dem leen jëfe ji. wante def ko comme soxna soosu. def ko comme soxna soosu. Cheikh Ayouba dafa waxtaan ba pare. nee na dañuy waxtaan ba pare. wax ni jëkkër warul di dóor soxnaam. jëkkër warul dóor soxnaam. ndekete veille bi dañoo songo woon. ndekete ci veille bi moog jëkkër ji dañoo songo woon. balaa muy teg koor gi rek. nee na ba mu demee balaa muy teg ndogu rek. nee na ma ngay jaabante. ma ngay jaabante. oustaz kay li mu wax lu leer nañu li mu wax lu leer nañu la góor gi dóor sa jabar moom musiba rek moo moom musiba rek moo kii kay ndeke marché bi kii kay ndeke marché bi du yomb de yàlla xam ne lim fi def fii lim fi def fii dóor bu ma dóor dóor bi ma dóor téye ko noonu téye ba songoo amaat ba <laughs> kon man dama leen di yàpp dama leen jëfe ji <laughs> jërëjëf waaw xam nga jigéen jigéen dañu wax ni bu kenn lee yàlla taxawal waxtu yu juróom woor weeru koor natta azaka dem màkk su ko mënee takk lafu sërëm rafetal sëyam bu dee dugg aljanna direct direct lañuy la wax waaye nag problème bi moo di jigéen ñu bari xam nga jigéen ñu bëri lu lay yàq seen sëy ma wax leen ko yéen wala jaru ko masaw maa ngi lay wax benn jikko boo xam ni jigéen ju mu nekk foo sëyi doo fa yàgg benn jigéen ju jikko joo xam ne jigéen ju mu nekk foo sëy di nga fa yàgg di nga am barke di nga di nga te te di am njaboot gu la yàlla jëmale xam nga ban jikko la rëy rëy rëy xam nga rëy mooy indi jigéen rëy mooy indi jigéen mooy yóbbu jigéen ca xoola mun sama jëkkër moo ma tooñ fu mu baaluwul duñ duñ juboo rëy mooy indi loolu wan ko ne ko man man dara dañuy sëy wala ma dem nga dem mais beneen jikko bi nga xam ne jigéen ju ko am foo sëy mu baax xam nga mooy ban soumission nangu jigéen ju la gën a mën a nangu jigéen ju la gën a nangu boo amee doom mu am doom différence baa ngi feeñ ci kanam <laughs> nangu nangu nangu nangu nag boo ko déggee nangu nag boo ko déggee ñu bari seen xel day am fu mu dem foofu foofu mooy terminaison bi déedéet déedéet nangu xam nga mooy lan nangul ci wax nangul ci taaj sa jëkkër sax dina la tooñ tooñ tooñ nga ñëw ba ci moom ne ko baal ma damaa juum rek te moom xam na ni moo la tooñ waaye xam nga loolu lu muy jur di ngeen dem ba bis ñépp toog mu seede ci yow lu la bett bett say mbokk ndaw si masow dafa am jëkkër jëkkër ji guddi gu jot day dem dox yi ba 3 heures du matin 4 heures mu ñëw fëgg bu fëggee ndaw si ubbil ko mu ne ko tàngalal ma ndox mu tàngalal ko mu sang ndaw sa doon nelaw de tàngalal mu tàng ko mu sang defaral ma sama reer tegal ataaya bi boo paree indi fruit bi boo paree nangam defaral café gi su paree waaw mu doogal ne ko waaw léegi nag mën nga dem tëdd ji moom moom waa ji mu tëdd toog di seetaan télé muy dund ak ndaw si plus de 10 ans ndaw si saa yu ñëwee rek mu def loolu ndaw si mësul ak ngaan benn waaye ñëw fëgg ko ba mu jóg mënu ko maa ngi giñ ci màggu yàlla nitu yàlla nga dama la doon seetlu dama la doon nattu waaye gëm naa ko fukki at ma ànd kook yow bis bu nekk ma dem doxaane yi te wér na leen damay doxaane yi musuma ñëwoon nga ne ma wow na wala tooy na waaye maa ngi lay giñal ni billaahi wallaahi tallaahi bis ni tey man yow yàlla bu nu ko def dootuma ko génn dama la yóbbu mag tabaxal naa la kër oto bi yaa ko moom. waaw xam nga xam nga loolu. loolu muñ ak nangu. ak nangu. xanaa xamoon ñaare ñaare koo gis mu nangu daa mën a muñ. waaye ñaare koo gis mu rëy du am patience. ma wax la leneen nit ma saw koo gis mu salte day mën a fen <laughs> koo gis mu siis day mën a fen xam nga lu tax siis da naan ko sóoral 3 kilos mu dem tibb ñaari pot ñëw toog nga wax mën na billee 3 kilos daal fen amul. kon ala kulli xaalin jigéen na defar jaamu yàllaam ci ci borom këram. na ko rafetal. kon beneen bi nag bi ñu koy tëjee mooy foofu laay duggee ci yonent bi. mu ne iddaaytum xubba rasulallahi wa taraktum sunnatahu mu ni bëri na ci ku ñu woo ne la yow mu ni billaay man ma bëgg yonent bi mu ne waaye bu ñu la xoolee li yonent bi digle defoo ci dara surtout Sénégal fi mu toll jigéen boo wax ñaari baat ñaar rek bu jooy man dama bëgg yonent bi te ba muy naan maa bëgg yonent bi ma nga yokk ba ca ginnaaw ga du tere ma wax leen ko di yàllaa ko xaramal du man laanallaahu waasila wal mustawsila ci ba ko wax de yàlla rëbb na kuy yokk ak ko koy yokk de yokk benn waaye nag mës na ma wax ne ma eh dimbalañ jigéen li ñuy jënd góor ñee jox ma ne ko waaw kon nag góor ñi ñu ngi leen di jox seen caabi safara ñoom góor ñee ngi lijjanti seen àjjana du loolu ba kon ala kulli xaalin boo bëggee yonent bi sallallahu alayhi dafa am noo war a mel xam nga soo bëggee yonent bi nooy def masaw dañuy dem xajjatul widaa muy dermo dernier sermon sermon wu yonent bi salaa ba mu naan inna dimaakum wa amwalukum wa aradukum xaraamun aleykum ba mu waxee loolu moom yonent bi salaa sallam ba pare xam nga jibril xam nga gars yi dañuy wax ni yow ma akmaltu lakum diinakum moom moo mu wàcc déet déet wa taqu yow man moo mujjee wàcc waaye ba mu jibril indee aaya ba dem yonent da ko woo mu ñëw mu ne ko dama lay laaj Jibril man mi su ma faatoo est-ce nga fi ñëwaat mbokk yi déglu leen de Seydal Hadji Malick nga ko bind nag est-ce que di fi ñëwaat Jibril ne ko waaw mu ne ko ah dafa am beneen yonent booy seet si mu ne ko déedéet loo fi wut si mu ko dama fiy jël si jikko ay jikko fukk la su jikkoy jeexee àdduna tukki léegi nag su ma waxee jikko yi di ngeen ma wax ndax jeex na wala des na masaw min baadihi yaa an fi rafia fasaadul xalqi lu mu ci teg yumnu jërëjëf nee na fukki jikko lay jël way ko ma dégg yumnun wa ubun wa rahmun madirun wa haya sabrun wa zuhudun sa xalqur an abi saalidana صبر مدين وحياة صبر وذود سخل قرآن الإنسان على النبي وعلى أمرين dama ko bëgg a bennal dama ko bëgg a benn benn rapidement mu ni yum nun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy waxtaan ak Jibril de Jibril ne ko naa fi jël fukki jikko su jeexee àdduna tukki yàlla day tukkal àdduna ci saasi yum nun ba ci jiitu xam nga luy yum nun xam nga luy yum nun barke barke may laaj fii bëri na ci ñun ñoo xam ne suñu papa yi ñeenti jabar la yoroon yor benn kër ñooy joxe dépense ndékki añ reer kenn mësul xiif am déet te salaire lu quarante mille lañ daan mbaa cinquante mille matul cent mille ngeen baal ma léegi da ngay nekk fonctionnaire am 400000 mënoo gérer benn kër. am na wala kon mbarke dem na. mille dañ koy toj léegi jëndee ko gaz mu jeex moo tax wax naa ni célibataire yi ñoo ñàkk sens dañ ñàkk sens jabar gaz 5000 lay ñoom seen jabar dana ne 10 000 la jëm. célibataire. déet déet eh, kaay leen laaj leen ma kuy célibataire. eh laaj leen ma kan mooy célibataire da ngeen may laaj kan mooy célibataire célibataire mooy borom benn jabar pour classe yi quoi waaw léegi waaw léegi ma ne léegi kon ku amul jabar nag kooku mort vivant yaa ngi dégg célibataire yaa ngi dégg ma barke dem na yum nun barke dem na ba ci bu njëkk bu njëkk bu njëkk mag ñi ay xola ay cawli lañ daan sol cawli cawli ak ay borode ak yenn yëru yu raar lañ daan sol ay tengaade léegi léegi ma sow da nga yor cent mille mënoo sol lu rafet mënoo sol lu baax cent mille franc cent mille da nga ko yor mënoo sol loo xam ni lu lu lu rafet la lu jaar yoon la bu njëkk mag ñi vingt mille francs ñu sol lu baax bu dee jigéen seru rabal yi ak vax yi seru dënk yi moo doon seen sañse léegi xale yi bàyyi nañu seru rabal bàyyi nañu dënk bàyyi nañu seru vax yeneen lañu nekk moo tax it te xoola da gis xale bu jigéen moo tax benn boroom xam-xam nee na jamono ngi ñëw jamono ngi ñëw ci la alal di gën a bari ca la xam-xam di gën a bëri ca la réer di ëppee réer te la xam-xam gën a bëri ca la yére di gën a bëri ca la rafle di ëpp da ngay dugg ci biir kër seeti xale bu jigéen mun la man cadre laa nga ubbi armoire am mu énumérer li mu fa am lépp totalisé la mu fa am ci ay yére muy 10 million te mënu ci am benn yére bu mu mën a jullee ay yére bi 400000 laa ko jënde bi 300000 bi 150000 bi 80000 benn mënu ci julli. benn mënu ci julli benn ay daggit la ñuy sol ay daggit tey solu jigéen fii ak ñaar yi mi ngi am yo solu ba baaxul la yasifu wala yashifu jigéen bu soloo romb la nga xam formam nu mu mel sol ba baaxul jigéen bu solo romb la nga xam couleur yaramam nu mel sol ba baaxul bu transparent yee baaxul bu seeree baaxul léegi nag gars yi balaa ñuy kontaan moom na taay baas damay def bu mu tëb kon yonent bi dafa am nuñ koy bëggee noo koy bëggee mooy dangay fexe ba li mu diglee nga teg ci sa tànk soxna yonent bi yonent bi dafa leen sonaloon lool keroog Massaw maa ngi lay giñal ni yonent bi gën a fiir lu yàlla bind gën a fiir lu yàlla bind moom yonent bi jigéenu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay soxnaam dañu mës a sonn ci kër gi ci seen éducation yan danaan veillé ci ñoom qul li azwajika yudnina alayhi min jalabibihinna nañu muuru nañu muuru nañu sol lu jot waaye fii dangay dem biir kër sëriñ fekk fa affaire bi xam nga lu tax may tudd sëriñ si ñun sëriñ si ñooy suñu référence moo tax bu doon yonent bi dama naan la kër yonent bi waaye kër sëriñ si da dugg biir kër sëriñ si fekk xoolal ñu def ba mu kon kon yumnun barke dem na mooy premier jikko ban ka sa baalam yumnun wa xubbun waaw kay mbokk yi xubbun soppante te yàlla tax fi mu toll nii koo bëgganteel yaa ngi naan eh intérêt dugal ci man takk jabar sax da nga koy takk da nga naan i intérêt la affaire mi ngi liggéey cas social du ma takk cas social man nag nee naa man nag nee naa jigéen ñi nañu am ful la comme nag ñoom maram gumba comme góor ñi nee nañ duñ takk cas social da jigéen ñi am ful la am ful la xam nga mooy lan comme ñoom duñ takk cas social yéen cas social ngeen yéen fexe leen am alal ngeen yónnee leen ñoom ñu ñëw takk si leen ñëw sëy si. non boobu moo waaye xam nga bu boobaa bu loola amee kaay ma wax la dugg nga de yow ndaw yow ku góor ki xam nga lu tax. yow bu boobaa yow yow amoo décision yow dañ lay yóbbaale yow. kon baax na. jikkoy jargoño ngoog jargoñ noonu la mel jargoñ bu jigéen bay takk ci jëkkër indi ko ci kër gi. Hmm. kon waaw. yaa loolu mooy seen dund. yaa ngi dégg du fi xaj tam temps bi moo ñu ko mayu waxu bun bëggante te yàlla tax. waxu bun. waxu bun da ngay gis xale bu jigéen nekk sa kër nga gis xale bu góor bu baax boo ko mën a may mu ne la moom laa bëgg nga ne ko déedéet doo bëgg maa lay bëggal man maa lay bëgg maa dem bëgg ñëw may la parce kii kii xëyul gontul bëggeel. mooy fondement wu sëy wa jaal naa ko mu mawadda wa rahma mbëggeel bu amul ci sëy sëy ba lu yàlla xam doy na mbëggeel mooy laytaayu sëy mu ni wa xubbun soppante te yàlla tax te yomal xiyaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bis yàlla gàccee ja ah, siraat ci kaw jahannama aaya bi soxna si jàng fii surat bi soxna si jàng suratu rahman yàlla wàccee jant bi ba mu tiim yuur yi yuur yi di baax rahman loola firi day tiim yuur yi tàngaay jant bi mooy baxal yuur yi yuur yi di bax nga ngi cerveau nit ki di bax yàlla ne yont bi ne bis boobu am na ñoo xam ni duñ ko yëg ñu ne ko kan mu ne mutahabbuuna fillaahi ñu soppante te yàlla tax wa ne ñaareel ñaareel bi wax de jibril nee na jikko bii wa hubbun dinaa ko fi jëlee soppante yàlla bu ma wax jikko bu ma wax bu fekkee jógewu fi rek neneen ma mi ngi fi cofeel te yàlla tax amatu wa rahmun ñeewant wala yërmande ñaar yëpp baax na balaa may ñëw ci balaa may ñëw ci maadilun ñeewant amatul xam nga luy ñeewant yow da ngay am njaboot wala bokk ci ki ma ko sañe wax Ibrahima Niang mu yor jabjam ak ay doomam bàyyi leen fi ñuy tàngal ceeb boo xam ne ñetti fan la di ko lekk moom mu ànd ak coroom dem dibitëri yi yërmande jeex na ñeewant jeex na yow yaa leen sañ njaboot lañu yaa leen war a dundal kon fexeel ba yow na nga am yërmande ci ñoom wala na am ñeewante ci ñoom yërmande gi moo di dem na ba ci yow mii kilifa gi yërëmal ñi nga yilif dimbali leen parce que doomu aadama bi doomu aadama la yàlla bind mu matadi mënoo fexe ba duñu la tooñ xatta boo nekkoon sa kër ak sa jabar wala sa yaay wala sa doom wala sa papa il faut nga am lu la naqari mais da nga koy muñ yàlla binde noonu nit ci nit ñi man laa yarhamu laa na ku dul yërëm kenn du yërëm boo dul yërëm yàlla du la yërëm te yàlla ngeeg loo xam ni tey si tey bis bu la yónnee woon léegi douanier yi ak agent secret ñu ñëw léegi ñu génnee la ay fautes yoo def ja discrètement waaye daf lay yërëm ndax inna rahmati wasi'at kulla shay'in mu ne wa rahmun demal bii gën a garaaw nag maandu te maandu maandu ñu wax la dara nga ne ah loolu de xaw ma dara fa dëgg neex yàlla te yàlla rek tax waaye suñu kilifa sëñ Babacar Sy Mansour sëñ bi Mansour xalif général de Tidiane nee na Sénégal yàqu na yàqu goo xam ni fi mu toll nii nit ñi seen njikko yàqu mu yàqu dem na ba du ñu nettali lu ñu fekkee lu ñu fekkee dañuy muuma boo bëggee ñu wax rek laaj leen lu ñu fekkee wala ñu la maa fekkee yàqu-yàqu jamono la maa ko fekkee imaginel wax yi ñuy wax ci internet bi réseaux sociaux yi nga xam ni lu yàlla xam doy na dañuy jël benn gor dugal ci turam def ci wax a wax a wax a wax ba ñépp xeeb ko léegi nag ñu jaaral ginaaw naan noo erreur la erreur de montage laak dugg na fii génn fii yàq deru jàmbur ba pare te boo xasee ba wax ba yàq nit mënatoo ko defal yow da gis nit nga wax ci moom lu ñaaw ba ñépp xeeb ko yow même bu fekkee moom dafa bon sax moom dafa bon même bu fekkee dafa bon yow li la war mooy nga nopp ci moom ndax yow yow yaa ngi ayib yu gën a garaaw loolu wax naa nag Sénégal benn jikko la ñu yor yow da ngay am dangay ngay am putantaan putantaan putantaan xam nga putantaan ah bu génn fii man ma yor góomu rogalaan naan sa putantaan bi moom doo ko faji ji te sama bopp rogalaan la 10 ans maa ngi am góom mi ngi rogalaan dégg nga nee na boo naree du tudd ay ayibu doomu aadama bi tuddal sa ayibu bopp. bu leen gëstu mbootu nit ñi. damay bañ dugg foofu sama ñi bu leen ko def. dafay jur bëggal moo xam ne dee su ko man ko. day lekk yu ba leen ko moom it du mbir mu baax. jëw mooy lan xam nga lu jëw ñi xamee ñu ñaar xamee wuñ ko de jëw ak fen xam nga luy fen. fen mooy nga wax lu ñu la laajul te muy dëgg bi maanaa ma génn dajeeg baara nuyu ko xam nga fi laa jógee ne ko maa ngi fa bàyyi Ablaye Ndiaye mi ngi sol mbasin bu weex Ablaye Ndiaye lu sol du weex waaye baara laajuma ko loolu mooy fen jëw mooy xam nga lan ah. ngay ñëw ma ne Ablaye Ndiaye ma sol par maanaam bii moom eh. rafet na de déedéet waxuma da nga waab de xam nga koo waab boobu yaa ngi koy sosal boobu sos la waaye par bi rafet na de waxuma ko loolooy jëw lu baax li nga wax ci nit ki te waxoo ko ci kanamam mooy jëw soo waxee lu bon li ginnaaw nit ki jëwoo ko danga ko lekk yonent ne ko wax fi ujuraati daa fa gis lii ma wax la baal ma nga du ne na ngeen moytu doyadal as bu leen wàññi ab cëram na ngeen ka ko la yàlla waxee lii suratul xujuraat mooy yaa ayyuha alladina amanu yaa la eh, tarfu aswaatakum waaw kay foofu la ko yàlla waxee kon masaw sax ma ma dem wa xubbun wa ma maadilun maadilun parce que tardé nañu ba pare incha allah bu déwénee kay lu ñu war a defar daa bëri incha allah bu déwénee day fekk ñoom maram gumbala seen affaire baax de lay jox biir màkk sax incha allah <laughs> yaa ngi dégg mu ni maa abdilul maandute maandute nit ñi nañu maandu même boo xamee ci nit lu baax lu bon noppil nu mu ci teg kersa waxoon naa ko sànq sidna omar nee na kersa dix pàcc dix dix dix parti la nee na jigéen a moom neuf parti yi góor moom benn parti bi déglu leen Omar nee na neuf parti jigéen moom xale bu jigéen bu commencé màgg ngeen baal ma ba weenam feeñ ba mu gis baax benn bi day root benn bi day wàññeeku ndax xam na lu mu xamul woon mu des huit nee na bu demee tuuti buñ ko mayee boroom kër première nuit de noces ak jëkkëram mu découvrir lu mu xamul woon benn bi root mu des ñaata. sept nee bu ëmbee ba wasin benn bi wat mu des ñaata. six Umar nee na six yooyu ndaw si bu takkee sëram continue sëyam sëy bu rafet buy dee di dugg aljana d'office li ma lay wax ma nga ca téere bu tudd jaa jaamiu jaamiul usulu jaamiu ala usul imam sidna Omar moo wax loolu nee juróom benn xaaj la jigéen di takk sëram toog sëy sëyam bu dee yàlla dugal ko aljana dofis mu ne nag waaye buy sëy mooy yàlla benn yoon ñu rotal juróom benn yëpp bu dee dugg safara déggoo li ma wax de kersa kersa nañu am kersa dangay gis xale bu jigéen bu yox ak papam jàkkaarloog moom nan nii wala xale bu góor buy wax ak baayam papa ji wax naa ko père gaawal waaye eh wax naa ni tardement weesuwul sa ndey sëy ba nga judd di toggal sa papa di toggal sa baay di ko bégal ba nga juddu yow nga juddu sa yaay continuer di la toggal billaahi ba ba ngay dee doom ba sa yaay di sonn ba nga juddu xanaa coonoom waroon wàññeeku nga duggal ko waañ di ko fóotal di ko jàppale waaye tëdd non mère bi moom xam nga dafa baax moom dafa dafa bëgg waañ waaw moom dana bëgg waañ dafa bëgg waañ moo la indi bëgg gi mu bëgg waañ la indi daf ko bëgg ngir bégal sa baay waaye yow da nga war a xam li la war a yow nga dafa bëgg waañ sax nga jege ko ci waañ gi waaye bàyyi ko moom rek xaar mu pare nga mos naan dafa manqué xorom yow yaa manqué xorom sur le plan waaw sur le mu ni moo tax it jigéen ñëpp sur le plan rek lañ mën sur le plan bi sax mënuñu ko bu ñu yàqee dañuy yàq nen bi mënuñ ci dara kon jàppaleel sa yaay ci loolu kon kersa kersa waxayaa muñ kenn muñatul fi waaw ah, lim daf ma ko def daf ma ko def dana moo xam ni ma ko gën a nekk mbaam waaw dama ko def rek eh maa ko naa ko wan ni maa ko gën a nekk mbaam fuuf wala maa ko gën a nekk xaj nañ sottante acide defante defante baax na waaye ci lu baax defante ci lu baax day jaay baax fii la may fekk man sama ndey daa baax sama baay baax danaa ko wan ni gënumaa baax dina ma teranga billaahi danaa ko wan ni teranga teranga koy fay daf ma saaga danaa ko wan ni man duma ma saaga kat man damay taggaate yaa baax loolu la ñu wax waaye dañuy defante léegi lu mu ci teg zuhdu mooy dëddu àdduna sëriñ see la gën a bëgg àdduna ñi ngi yaakaar ci wàllu diinaa la gën a bëgg àdduna yéen ci bay jàngale de alaaj Maalik ko bind dëddu àdduna àdduna rek balaa nga koy dëddu da koy téye wax naa la ñaar ñu bokkoon ndey ak baay Maodo la Masaw la ak Mbay Ja ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay Masaw am château Mbay am sàkket Masaw dafa am alal Mbay amul alal masow mi ngi tabax benn kaas ca kaw étage am def ci njoowaanam tëdd di njoowaan mbay jaa amul dépense ni doomam kay dem sa ma Masaw mu dimbali ma jox ma dépense junni xale bi ñëw ma Masaw sama papa nee na amul dépense tey bu ma jox ko junni mu ne ko waaw am boo demee nga ne sa baay eh, na bàyyi bëgg àdduna <laughs> te moom sàkket la te moom mi naan ko bàyyil bëgg àdduna mi ngi ci xale bi ñëw ah daal di ne ko papa ni ko lu mu la wax ko jox na ma 5000 de mais nee na nga bàyyi bëgg àdduna mu ne ko barke alxuraan wax na dëgg bu ma waxee dëgg mu ne ko moom mi tabax këram nekk ci château di njoowaan njoowaanam moom lijjanteetul àdduna yàlla lay lijjanti man mi amagul àdduna man mi may lijjanti àdduna ah, kooku dégg àdduna àdduna ba nga koy dëdd da koy téye waaye ne man dëddu naa àdduna yow amoo dépense noo dëddoo àdduna àdduna la dëddu ah moo tax man grand baara dama gëm li muy wax toujours bu ñu demee waalo danaan mag ñi génne leen mbóot yi ñaanal ñu ñu am alal ñun ay xale lañu alal lañu soxla wala dëgg bàyyi na fii tur yàlla yi soxlawuñ ko dañ ko bàyyi ba ci kanam ñu soxlawuñ ko tur yàlla yi ñaanal leen ñu am alala parce que àdduna alal la koy doxal xubbu shahwati min annisaai wal banina wal xanaatini muxantarati min addahabi wal fidda alxuraan a ko wax waaw waaye naan non damay dëdd àdduna moom kay fi mu toll jàkk ja kër ga bi nee na lay jox ndékki ñoo la gën zuhdu lu mu ci teg saqa ba pare alxuraan doog a ñëw saqa xam nga mooy lan tab ku tabee sa <laughs> saqa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na asribun min annaas wa baidun ani naar jege na yàlla jege nit ñi sore na safara mu ni albaqiilu ku nay sore nga yàlla sore nga nit ñi jege nga safara moo tax nay baaxul tab xam nga mooy lan tab xam nga luy tabe yow mi am alal waxuñu la ngay julli dinaa fi kenn waxu la loolu yàlla soxlawul loolu borom alal lii la wax mooy jël alal ji nga jox ko jaam yi yow mi am xam-xam joxe ko yow mi am mbaax joxe ko waaye dañ ci alal ci compte bi di kabbar allahu akbar naafila cinquante mille rakka yow ñi la jegee ña ngay xiif boo paree yàlla jël ko tas ko jox ko jaam yi balaf saxawatul agniya al agniya wakili wal iyali ida salabtu nakali wala ubali yow mi am alal distribuer ko jaam ñi kon saqa tab ñi tabe ñëpp yonent bi leen gën a tabe sëñ Tuubaa ko wax de dayantu laazimahu la wax badun wa bazlun dégg nga sëñ Tuubaa badun wa bazlun ne du ci yem day yulli joxe yulli yulli gis ku yulli poosam voilà téere yi sax nee nañu sallallahu alayhi dund na ba faatu mosul am ñaari yére su amee benn bu bees naan la ma sol kaay ñoo eh, jëla bu màgget bi bis mu nekk mu am benn jox la benn bu bees bi mosul am ñaari yére fii nag gars yi dañuy yor waxanda waxanda waxanda naan noonaa xol yu xottee ko ma saraxe ko kon yamun nu day maye bilaa man nin te du la ñaan sa sëriñ sa sëriñ sa sëriñ wax li kon danga ma war sarax alxaaji Mansour mu Malick ne alxaaji Malick mu ni mam Mansour si Malick ne Thiel Mouhamad mu ni yemul bilaa man nin nee na bi soo mosaan ñëw fëgg ko huit ne ko may ma cent millions nin te du la ñaax huit heures dix nga ñëw ne ko trois cent millions mu génnee trois cent million jox la neuf heures nga ñëw ne ko cinq cent millions mu génnee jox la dix heures nga ñëw mu génnee jox la midi nga ñëw quatre mu lay jox di la jox te du tax benn yoon mun la eh amal xel na yow tamit waay sa bilaa man nin te du la ñaax wayan filmasiya yamun nu bilaa man wayan filmasiya alquran nee na wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada bul dimbali nit ba pare di ko ñaax nit ñëw seet si la nga may ko may ko ba pare na ko yàllaa ko yamal mu ñëw ci yow ñaan la yàlla moo ko xañ may la yàlla mi ko xañ may la rek yow war na laa doy jàng ba ni amaloo fa sayara amalakum wa rasuluhu def leen li ngeen neex lu leen neex liggéey leen lu leen neex yàlla ngi jël bëtam bii di leen déglu di leen xool moo ko yonent bi alaj mal ni kon de yàllatul may nelaw comme yàlla may teg bët nelaw jeex mu ni beneen bi moo di yàllatul may sonn waratuma sonn comme yàlla day fay yomal qiyaam kon dootuma nelaw dootuma sonn léegi na ñun aaya alxuraan moom day gis ñu ne dañuy jàngal diw kaamil gars yi naan fan la fan la fan la kan moo gaañ diw la diw dafa amoon xaalis nga ne ah, kaamil boobu dina am lu mu kii ko bëri na koy toog ci yotam jàngul dara alxuraan kon ala kulli xaal yi dañuy jàngi loolu la ñuy jàngee ah. déggu ñu li nga wax de. joxo joxo bi joxo bi. lu nit ñi ñuul ñuul. lu muy bëri bëri xaw ma ci dara. lu mel ni ne ñoom ñoom ñu bëri bëri bu njëkk bu waxee ci kaw ñu wax ci kaw ñu ñu ñu ñu ñu bëri xam nga ñu ñu ñu bu ñu waxee ci suuf wax ci suuf lu mel ni ne ñoom ñoom ñu bëri bëri xam ñett ñi naa ku ngeen wax laa wax ku ngeen wax waxuma ku ngeen wax laa wax loolu la kare kon ala kulli xaalin alquran alquran alquran gars yi jàngatuñ ko waaye jëfeetuñ ko alquran maa ngi gis ci internet bi benn waay bu ni mu ni moom maam borom Touba la yaakaar mu ni moom Serigne Touba lay bëggee mu sañ jël ay kaddu yamu ci mu ni moom alxuraan lay jàngale mu sañ jël ay kaddu yu ñaaw teg ko ci Serigne Mbaye Sy Mansour te mu ni moom maam borom Touba la yaakaar te mu ni moom jàngalekatu alxuraan la te Serigne Touba radiyallahu anhu dundam yëpp di jàng jàngale defar defare defar defare kuy defar tey defare kooku du santaane wax lu ñaaw kon bëri na moo tax sànq ma ne la bëri na kuy askanale sa bopp fenn bokkoo fa génne nañ la bu yàgg parce que boo bëggee boo bokkee fenn da ngay def wala ngay wax la ñooñee di def te ñu koy wax kon nag alxuraan boo koy jàng di ko jàngale da nga war a am jikko yooyu làmboo yow alxuraan boo koy jàng di ko jàngale rek waxuma boo koy jàng di ko jàngale waxuma boo koy jàng di ko jàngale yow boo ko jàngee rek dañ la wax ne am na jikko yoo ci war a jël rawatina nag nga koy jàng di ko jàngale nga jàng koo par di ko jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam garanti ñiy jàngale alquran jàng koo par di ko jàngale yonent bi nee na ñooñee xayrukum man taallama alqurana wa allama yow loolu rek na tax yow nga baax waaye jàng alquran di ko jàngale wëlbatiku di ŋàññi nit te maa ngi lay giñal li barke alquranul karim ba adduna tukki am na ñoo xam ne ku waxtu ñoom lu ñaaw dootoo noppi ba ba ngay dee da wax lu ñaaw parce que yàllaa tooke seen yaram suñu mag ji réew mi ci lañ bokk waaw Cheikh Ayouba non euh, nee nañu nee nañu nee nañu euh, ñambaas niroo séer ba ah, bu ko niroo rek macha allah li moo xam na solo ndax ñun li ñu waroon talxiis mooy résumé moom la ñu waxal ndax dañu waxoon dégradation des mœurs mais responsabilité des parents donc moom dimbale nañu ci responsabilité des parents mm-hmm. na ngeen yëg nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yawmal xiyaam yàlla day teg baay teg yaay laaj la ne la ee eh, yow noo doon noo doon sàmmee sa njaboot gi mais kay ma wax la même école bi ah, directrice bi yàlla dina ko laaj de yëg nga ni chef de quartier bi yàlla dina ko laaj yëg nga monsieur le ministre dinañ ko laaj directeur bi immeuble imam bi maître ñépp lay laaj képp ku yor responsabilité dinañ la laaj léegi nag responsabilité boobu bu ko kenn fuur fuur ko moo di li olof di wax ci jamono ji baaxul njaboot gi njabootu kanaaral la du dëgg dañ leen di jiital topp seen ginnaaw déedéet loolu ko def di nga dóor sa loxo ci ëkk xale xamul dara bëgg-bëggam rek la xam yow mi xam dara yaa koy orienté par rapport ak bëgg-bëggam oo ko ne ko lii moom nga bëgg waaye baaxul nangam ak nangam xoolal diw fa mu jaar xoolal diw na nekk sa référence yéen a bokk xool ko fu mu toll xoolal kii nu mu def ba réussir fexeel nga réussir yow sa tante diw xool nga nu mu def sa mag diw xool nga nu mu def yow sa nijaay diw xool nga ko sa grand frère xool nga fu mu jaar ak ni mu sonnee dem investir amul lu mu lekk amul lu mu naan fi mu toll ni mi ngi Europe dem na ba jàngi ñibbi si na mi ngi liggéey mu ngi gérer këram def ko muy sa référence xoolal diw xoolal diw sa nit da nga koy sermonné waaye parent boo xam ni danaan ah loo ma jox baax na li ma koy tëjee mooy xisa sayyidatina Maryam Maryam alxuraan a ko nettali ci gàttal bu mu ñëwee ba papaam dafa ñaanoon am doom bu góor yaayam ëmb ko papaam de léegi yaayam ni comme sama jëkkër faatu na man sama yéene jëkkër lay motti ndax papaam danoon xale bu juddoo dama ko yóbbu ci daara ji xale bu juddu mu yóbbu ko ci jàkk ji ndax bu njëkk jàkk lañ daan jaamoo yàlla jàkk ji mu ko yóbbu papaam xa papay xale bi gaañu ki gaañu moo nekkoon imam ba mooy Imran moom la alxuraan tuddee la famille d'Imran Ali Imran ñooñee seen xisa dafa doy waar moo tax yàlla nettali ko léegi Mariam boobu nag mooy doom Imran ak Inata Inata mooy yaayam baayam Imran moo doon imam ci jàkk ji léegi Imran yàlla amul logique de Imran mi nekkoon imam nay bi topp ci Imran moo doon Zakaria Zakaria yonent la Imran du yonent gis nga yàlla ay imam imam bi moom du yonent ki topp ci imam bi moom moo yonent léegi na kon Zakaria jël na place moom mooy imam bi ñu indi ko ci jàkka ji ñu jox leen ko yaayam bu xale bi juddoo mu ni naa ko yóbbu xale bi di jigéen mu ni ah naa ko yóbbu rek comme jigéen la naa ko yóbbu rek naa tenté chance rek yóbbu ko waaye désespéré na ndax wala sa dakk rek la ustaala wax bu mu ko indee ci jàkka ji 19 personnes lañu ci jàkka ji 19 personnes alxuraan a ko nekk ku nekk nii moom mooy jël xale bi moo ko yar muy Mariam mm. muy mari ñu ñu puluf ko puluf Zakaria gañe ko Zakaria ba mu gañee dafa tabax benn apartement ci kaw bu am chambre salon salle de bain chambre salon salle def ko lépp dugal fa Mariam Mariam dugg fa mu nekk fa di ko yóbbul ndékki añ ak reer mais saa yu demee fekk fa lekk bu bees déggoo li ma wax de saa yu ñëwee bu indee ndékki kafe ak meew mburoog bër bu ñëwee fekk fa ndékki waa Amérique bu indee añ fekk fa añu waa Mauritanie bu indee reer fekk fa reeru waa Suisse mu jaaxle déglu leen mu ne ko yaa Mariam anna laki haada Mariam foo jëlee lii man duma la ko jox te yow man maa soo sa responsabilité man lañ la jox pour ma yar la ci wàllu diine yow loo yor war naa lijjanti fu mu jóge fii da gis borom kër boo xam ne danaan xale bi moom kay dafa baax day dem ñëw indil ma alal ju bëri dimbali ma <laughs> lijjanti woo fu mu ko jëlee xamuloo ndax dafa génn nekk ci blanchiment d'argent xamuloo ndax day jaay drogue xamuloo ndax day jaay boppam xamuloo lu muy def waaye daal na ñëw rek yow na ñëw rek na ñëw mu daal na ñëw rek sa sa sa sa sa sa sa sa liggéeyu ndeyee demal sa sa liggéeyu ndeyee sa liggéeyu ndeyee maa ko fi liggéey maa ko fi xaar sa kër bàyyi bis ñëw mu am lu ko naqari nga bett na ma fekk yow da ko ko waroon laaj am na lekki haada baat boobu nag kilifa ku nekk war nga ko laaj sa doom am na lekki haada eh bu indee dàll yu bees fii foo ko jëlee yow yére yu bees foo ko jëlee mu ñëw indi kay bu bees mbaa big eh, lii moomuloo jëndaluma la ko indi xarit bu bees sax laaj ko eh kii kan la waaye sa doom ku mu àndal baax na moo taxit day dem ñëw nga naan kii yarewuma ko lii de jikko yu bees kon nag dégradation de mœurs su demee ba am rek mooy fuite de responsabilité des parents fuite de responsabilité des parents nag lu muy jur mooy ñu dajeek yàlla mu duma leen te kat yomal xiyaam yàlla neena dina dinaa teg wayjur teg doom laaj ko ndax doom wayjur yar na la ci diine laaj doom ndax wayjur wayjur jox na la tur bu baax laaj doom ndax wayjur jàngal na la xam-xam jàngal na la jaamu yàlla ndax daan na la wan nu ñuy jaamoo yàlla mbokk yi waxtaan wi jeexul waaye fii lañ koy jukki ah ci ndigal suñu seriñ nag lañu fi toogee ba bi bii Mouhamadou Lamine mii waaye man trois heures demi laa doon dem laa doon dem ñamay xaar xam naa ni fi mu toll nii téléphone bi moom <laughs> lu yàlla xam tey na ah, ah dama ko fay waaye xam naa ni moom lu nekk moom danaa ko dégg waaye nag ndigal moom du lor ala kulli xaalin ñu ngi leen di ziyaara bu baax di feddali suñu kóllëre ak yéen di leen jox suñu loxo xol di ñaan bu déwénee yal na ëpp nii yal na ngeen yokk ba yëg ko te yokk ba ca gëna tuuti yal na nekk wér ak tal ak fekkee ku fi nekk di xale bu jigéen tey jàng góor góorgóorlul fonk sa jàng ak ñalay jàngal góorgóorlul fonk say wéyjur ku nekk xale bu góor góor góorgóorlul fonk sa jàng jàng yàggul ñàkk jàng jàng yàggul ñàkk jàng moo yàgg jàng yàggul ñàkk jàng moo yàgg dama am sama benn soxla dama am sama benn soxna sama soxla ma sol sama benn soxla dama lay bañ wax turam nga dem di ko tooñ ndax dama la xam am ku ma woo nekk Europe léegi nag ba ma wooyee ba maa ngi sama course moom la jot nag kooku di ko làkk mënuma dégguma lu muy làkk di ba ma paree ma ne ko bañ la nee jàngal da nga bañ mënuma baat bii nag dina tax ma jàng ji waaye ala kulli xaalin li ma bëgg wax moo di jàng leen xam-xam foo ko jëlee baax na noo ko jëlee baax na yonent bi sallallahu alayhi yàlla dane ko iqra la wax iqra baatu iqra mooy jàngal xam-xam yépp français anglais espagnol lépp jàng ko waaye nag li nga bëgg rek le pour adduna jag bismi rabbika ngay jàng kon ala kulli haalin jàngaleen xam-xam yépp tailleur mécanicien lépp xam-xam la te da lay jëriñ bés a ngi ñëw dana la jëriñ ndax li bor mooy tàllal loxo waaye li gën moo di jàngaleen xam-xamu comme ni ngeen ko defee fii ñi ngi ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujjum daje di delloowaat di gërëm di sant Abdallah mii ndax ba ma woowee dama ne ko man la cinq laa war a dem mu ne ma ah le cinq boobu lañ ko bëggoon def waaye le 6 lañ koy def ma ne ko def nañ ko la 5 wala le 3 mu ne ma déedéet oustaz def ko le 6. ne ko ah metti ndeysaan mu insister ñu ne ko incha allahu danañu ñëw te yow yaay tax ñu ñëw yàlla defit ci kattanal yàlla ak ci mbaaxam macha allahu nii bi ñu jógee fii ñi ngi dem waxtaan samedi ñi ngi am waxtaan xam naa ni incha allahu dimanche mm. la ñu war a dem ci kàttanal yàlla ak ci mbaaxam mais bu dul woon moom mm. programme yi yëpp du ñu fi fekk mm. kon nag lépp moom la ci mbaaxam la ak suñu mag ju baax ci Mouhamadul Amin ñii ma àndal nag ki mooy Masaw Sow ki mooy Babacar ja sëriñ Mbay Dia kii sëriñ Mbay si Mansour lañ ko tudde direct mooy kilifa mooy sëriñam ñun ñëpp mooy suñu kilifa waaye moom mooy la kulli xaalin yàlla bu mu nekk suñu mujjum daje fay ñu ngi lay ziar bu baax euh, dem naa ba euh, kër dëkku buur siin gu mën day feen dafa conférence ak sëñ Moussa Mbacke naawel ndeysaan boobu laa xam ni macha allah sëñ Tuubaa liggéey na ci séeréer si lu bëri sax lu bëree bëree bëree bëree lu bëree bëree billaahi wallaahi waaw ah, lu bëree bëree kon nag yàlla bu nekk suñu mujjum daje in urid ila al islah mastataatum wa ma tawfiq ila billah wasalaamu aleykum ñu ngi sant bu baax a baax di la di la gërëm di jégalu aussi si retard si kii euh, waxtu bi ni mu dépassé aussi ñu ngi lay jégalu bu baax a baax di sant ñu fi teew ñëpp aussi di gërëm ñëpp di ma tàmbalee ci imam bi ba ci suuf dëkkandoo yi ñu ngi leen di sant bu baax waa foyer bi aussi ñu leen di gërëm bu baax euh, di sant aussi collègues yëpp di teewal nañu macha allah ñu leen di gërëm di leen sant. di ñaanal yàlla yal na yàlla dafa jàmm dafa nit ñëpp yàlla barkeel njaboot bi